الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ñëwaat ci seen 1585 ci ndigalul borom bi toll ci rek leeral yenn gis-gis yu mbokk yi di sàkku ku ko leeral ci donc ci jamonoy campagne niñ ko xamante ci Sénégal <coughs> ñiy laaj xobi nit ñi seeni kart léegi dañoo dañoo gën a am yitte lool gën a jige nit ñi ci wàll yépp dem di di jaal yi dëj yi nemmiku nit ñi ñuy yóbbaale programme ñuy yóbbaale euh, alal ak wax ju jub comme ni mu daa amee rek wax dëgg yàlla noonu rek lay amee amit ñuy xaar loolu ndax ñoom it seen traite taxaw na bu boobaa ndax da dangay da ngay da ci loolu yow jullit bi nag saa su ne di doon koo xam ne day mel dañ lay xont rek bu ñu la soxlaa xont la ndax xarum tabaski mi nga jënd indi sa kër kër ki des ñaari weer diggante boobu moom dina wuuteeg ba mu nekkee ci coggal ca ndax danga ko ber léegi di ko xont rek waaye am na nag bis boo koy négee kon yow citoyen bi yaa war a xam nag yow li nga war a jar yow est-ce que mën nañ laa jënd est-ce que di nga nga ko la jënd est-ce que buñ lay jënd yow lii lañ lay jëndee Euh, jullit bu ne walla nit rek ku nite di ab sénégalais ak loo mën a doon loolu fii na war nga caa war nga caa yeewu mag day weesu nax ak it olof nee na mag du xam ay naxam di ca tàbbi bu ma waxee loolu nag nekkul ni ñiy dagaan carte yi ñëpp jubuñu déedéet mbokk mi ni ginnaaw laa waxoon démb rek ci ah, jitaay bi ñu weesu nii ñu bari seet si daal bëgg nga jàppale leen ñu am yaakaar ci yow nooy def ma ne nga seet ka ci gën a dëppoo li baax ci réew mi te wàññiwul dara sa diine waxuma nag luñ ñu baax na ci réew mi te fekk day wàññi dara ci sa diine waxuma loolu waaw diine mooy moom mooy mooy nday bind gi diine mooy nday bind gi waaw demal ci ay réew gis ñu avancé lool ci wàll yëpp yëpp yëpp yëpp boo de boo demee seen réew ya ngay waaru waaye diine sero sero sero suñoo faa yëkkati benn jumaa bu am sooroor suñoo faa nodd suñoo faa muuru te avancé nañu boo avancement kay taxul ñuy wax taxul ñuy wax ñun ay judit lañu ay judit lañu nun la suñu boroom bi xañ boole nag yonent bi xëy mooy njiitul yonent yëpp alayhimu salaam am na lu nu sañul am na loo xam ne ñimewul ko diw daa jaay diineem diw daa jaay ngorom nag loolu lu mat a seetaat la diine ku ko am muy ngam yàlla doo ko jaay ngor ku ko am muy màndarga bu kawe boobu du ko jaay ah amu ko amu ko woon ni jaay na ko rek nekk fa woon nekk ab jullit day tëkkër ba ñëpp a ngi koy def ma def ko loolu du melokaanu jullit du man dong déedéet olof nee na du man dong bokkuma caaku kan bokkuma caaku kan waaw kon euh, noo ngi woon ci atiu allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum na ngeen topp yàlla topp yonenteem ak ñi leen jiite xam nga foofu am na sew-sew suñ boroom bu noon na ngeen topp yàlla na ngeen topp ab yonenteem na ngeen topp ñi leen jiite waaye waxee ko noon de bi mu ne na ngeen topp yàlla nangeen topp yonente bi ak ñi leen jiite nga ak ñoom amuñu na ngeen topp ñi leen jiite gis nga ko atiu llaha wa atiu rasula waaye néewul wa atiu ulil amri minkum waaw da leen a ataf ci rasuula ba rek kon lu ñu mat lu war a lu war a seetaat la mbokk yi juróomi at ak fukki at ci yemale benn at benn bis boo koy jox nit ku la war a jiite war naa doon koo xam ni ngëm yàllaa ngi ci moom diine ji niñ koy niñ koy saax-saaxee metti na noo ngi nii senegal bu doonee fukki million juróom-ñaar fukki million juróom yëpp yëpp ñi ngi bëgg ñu ni nañ wax ni góor jigéen kirim la fii dañ ko fi aaye juróom juróom ñeenti nit tëju ci ab béréb assemblée lànk ni li ñu bëgg du fi amee faale wuñu seen kilifa yi ñuñ gën a faale ñen ñen kaw di leen digal yow nga xam loolu defe ni doo ci dara dara nga ci de dara nga ci de bul doye dil benn woote woote yépp doy waar tànn ak mat waajal ak mat a seet ak benn mbokk ni ndax <coughs> euh, ngeen bal ma dina daggan ci jullit bi muy jël alal yooyu ñu koy jox maanaam boroom xam-xam bi def nañ ay jàngat waaye dañoo wuute nag ci jële ci ñi ñuy wax ay salaatina <coughs> ay njiit di àdduna yi seen alal yooyu ñenn ci boroom xam-xam yi dañ ko daganal ñenn ñi dañ ko araamal ñenn ñi nee nañ dagan euh, du dagan ndax euh, ñoom jële nañ ci euh, ali ibnu abi talib radiallahu taala anhu mu wax ni inna sultaana yusibu min al xalaali wal xaraami fama ataaka fa xushu fa innama yutika min al xalaali nee jële nañ ci Seydina Aliyu ñi wax ni moo ko wax mu ni a ah, buur day dina am alal ju dagan ak alal ju xaram waaye yow bula la joxalee boppam ci coobareem jël ko te jàpp ni ci li dagan ci la la dox jële nañ ci Omar radiallahu taala anhu mu jële ci yonent bi sallallahu ni yonent bi nee man uxtiya shay'an min xayri masalatin falyaqusu fa inmahu risqun rasaxahu allahu taala nee la kuñ jox dara te laajoo ko na ko jël lañ ko jox aw wërsëg la wu ko yàlla wërsëgale gis nga kon kon ñooñu am nañ aw lay jël nañ ci amas jël ci ibrahima annahu mu ni moom lam yara ba'san bil axsi min al umaraa nee na gisul daal lu aay ci jël ci li nga xam ne moom la njiit yi di joxe waaye wa an abi bin ibni uh, ubay abi thabit qaal raaytu hadaya al muxtaar ibnu fa yokk bi man gis naa addi joon jóge ci muxtaar ibnu di ñëw ibnu omar ak ibnu abbas waaye bu ñëwee dañ koy jël waaw wa an asanin annahu kaana yaxusu hadaayal umara sina asanin moom nee na daana jël adde yi jóge ci umara yi waaw ndax umara yooyu moo ko suñ umara yi ndax ñooyam waaw ndax joxe win wi nga xam ne bala ñu laa jox xam nga am na jox yoo xam ne ci campagne dong la yam campagne dong la yam léeg nga gis koo xam ne wax dëgg yàlla at yëpp yëpp mu déggoo fi fu mu taxaw jaal si famille bi waaye fi ñu toll nii bi campagne bi léegi day jaal si léeg-léeg mu jaal jaal boo xam ne sax moom ëpp na at ëpp na at waaye Sénégal nag moom jaal moom léeg-léeg eh, ci lañuy sax jubale ñaari nit dañuy gis ko ni ah diggam ak njiitu réew mi dafa xajam digg moom ministre sàngam ministre sàngam seen diggante dafa xajam kenn ka gaañule ah beneen ministre ba wala njiitu réew ma dem fa dañu faa keneen sax ku mu dëngoo ñu faaf juboo wala mu juboo kooko yooyu moom mi ngi ci suñ biir suñu njiit njiiti àdduna yi suñu njiiti àdduna moom bu ñu koy sib rek mooy loo xam ne dëgg yàlla ñaar ñii la concerné waaye concerné wul population bi ñu cey def loo xam ne seen mbir bopp lañ cey réglé ah, wane li kii defee ngir yàlla waaye am na lum ci raxale yooyu lañ ciy bañ waaye jaale ab jullit da ko war def moroom ma ndax àq la ci ki nga xamanteel ki nga dëkkal ci bu amee lu tol ni ku faatu nga wax ko si gindigaale mas bu amee lu mel ni ak yokk ci wàllu euh, soxna doom ji juddu nga nga nga ànd ak moom bég ca li ko sunu borom defal yooyu ay àq la ci diggante nit ki ak ki mu dëkkal rawatina ki nga bokkaloon benn état moom it wala ngeen bokk ay nawle nga jiite parti mu jiite parti ngeen di ñaari jullit jaarante bi lu kenn terewu ko waaye rax gi ñu ci rax politique loolu moo mettil mbir yi suñu yëpp yëpp dañ ko politiser politique min alif ila yaa 2012 ba léegi politique bi gis nga ni mu jaxe waaw ni mu jaxe fàtt nañ la ko jiitu woon rek lu rek xew fi rek kon xew na fi ji nañ fi nit ay quatre-vingt-quatorze milliards ba jamono yi dégg nga ki mbokkal benn parti fële ci Louga di sulliwaat Euh, juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent yooyu nga xam ni euh, biñ ko jiñee mbokk mii mu koy mu koy bëgg ñu sulliwaat ko dégg ñu mu wax ci dara tey nag neexoowuñu rek <laughs> rek diggante Moustapha Diop ak Mamour Diallo la defe naa ñu daal di déggaat ñu bëgg waa kër Moustapha Diop bëgg sulli la su ko defee nga xam ne nag ni kon mbir yi daal wax dëgg yàlla su fekkee lii mooy politique ñi ci duggagul te bëgg bëgg jàpp seen ngëm yàlla bëgg jàpp seen ngor buñ ci dugg ndax ñetti téeméer parce que nangam te mbir yi jagagul di gën a jagadi association yi nag daanaka moom moo ni sant yi bare Sénégal noonu la toll ak mouvement yi moom it sant yi bare daal daanaka xaw naa toll noonu yëpp ku ci duggati war nga koo xoolaat bu baax du mën a ñàkk nag nit léeg-léeg ak dëggoom tax na mu génn ca ñam doon ànd ndax war nañ ko ndax politique bu ñaaw mu feddi géewu ber yoonu boppam waaye yeewu daal jot na de suñ abbas doon wax rek wàññi leen waaraate bi te yokk yeete bi daal jot na jot na waaw ci wàllu woowu ba tey nga xam ni jëlee nañ ci Ousmane Ibnu Affan radiallahu taala anhu nee na benn bis dafa romb abu darrin fekk muy nelaw daa bokkoon ci fokkaraaw bokkoon ci suuf yànk yi nekkoon ca Médine ñoom abu hurayra ñoom ñoom ñoom sama sëriñ soosu ah, abu darrin sina Usmaan romb ko fekk muy nelaw ci wetu miiru jàkk ji sina Usmaan wax benn xale ni ko am dinaar yi nga toog fële bu yewoo moom waa ji nga jox ko su ko jëlee kat yow jàppal ni tey yow gor nga duutoo ab jaam ah, xale bi toog waa ji toog ba abosarin yow mu daal ko koy jox abosarin laa di gàntu allahu akbar xool mbokk yoroo dara ñu jox la alal ay dinaar xale bi ndeysaan ni ko waaye jël ko boo ko jëlee kat sama buum gi ci sama baat njaam gi dagg nga ko sa jël ko rek man gore naa munu ko laa aqutuhaa man duma ko jël mun ko ndax lan mun ko fa inna fii istirqaaqu ak jaamal mi ngi ci biir maanaam su ma ko jëlee rek nekku jaam mayet seet istirqaaqu raqabati gis nga ko ñooñu foofu lañ ne foofu lañ ne rek ndax lan daa xamul fu xaas bi jógee daa xamul fu xaalis bi jóge caay xam naa loolu day wuute naag ak mbóojeen yi ma xam de ak ñenn ci jangeen yi maa ngi leen di siyaar bu baax gis nga kon jëlee nañ ci abi waa'il muy wax ni euh, benn dërëm bu jóge ci commerce ñëw ci man moo ma gënal fuuf fukki dërëm yoo xam ni dafa jóge ci njaxin woowu jële nañ ci abdul munaim ibnu idris mu jële ci baayam mu jële ci waa mu wax ni am na benn waaye bu ñëw ci abu darda mu ne ko ya aba darda diw day xas na ma diw tooñ na ma de tànc na ma abu darda ni ko su fekkee wax nga dëgg day du romb ay fan te déggoo yàlla mbugal ko nee na ay fan yu néew romb rekk waa jooju daal di dugg ci dugg ca buur ba mu daal koy jox euh, fukki fukki junni dërëm abu darda daal di yónnee ci waayam jooju ñu ko ah, yow day wax nga dëgg de yàlla mbugal na ko mbugal mu mag a mag a mag mun ko yaa Badar aw ba àddasaale ko xoobatul ah fukki junni ci ay ci ci ci xaalis loolu mbugal la mun ko wallahi law jallada ala dharihi asrata alaafi sawtin kaana arja lahu min asrata alaafi dirham mun ko wallahi fukki junni yar ñu dóoroon ko ko ci ginnaawam mu gën fu fuuf fukki junni dërëm yi ñu ko jox ndax lan xam nga yar yi moom buñ la ko dóoreel day miti rek waaye benn dañ laa tooñ dóor la ko mu jural la tuyaaba wala nga am loo def ci sharia ñu dóor la ko mu teggil la bàkkaar gis nga ko waaye nag alal ji jox nañ la ko te muy alal ju araam nga jël ko bind ko te alayhi salaam waxam na ni wépp yaram woo xam ni la ko la ko la ko tollo nam tol riba la nee na sawara moo gën a yey ci yaram woowu allahu akbar kon mbokk yi dañ ci def benn taxaw rek ci ñu ko mbokk yi sàkkoo woon ci euh, nit ki ak alal ak moom dignitéem ak ngëmam ak ngoram daal war naa tax ba kenn du ko mën a jënd kon waxtu jot na wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bi furudin wa sunan sakartuhu lianna qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani